mais Tange style bu bees bi garaaw na. kon lii style bu bees la. waa ah, lii kenn gisagu ko si réseau yi. la. non lii si réseau kenn gisagu ko. ko si kaw Tange. Ah. Ah, jamono ju nekk ak li ci war a xew ren mbay ah jamono ju nekk ak li ci war a xew. ah fi réew mi toll la. comme gars yi nee nañu gatsa gatsa. ñu ngi taal kër jaamur yi. di taal oto jaamur yi. dem salon a massage guddi. waaw vingt une bàyyi sa ñaari jéeg. ñu ne la procès nga ne procès nga yàkkamti procès ñëw nga daw mhm. ba pare gars yi taxaw sa buntu kër barricade ñu ne dañu saat fayal say àq ak sa yelleef ay booy nekk jigéen chor baare yoon bi pendant ay jours kenn waxu leen dara naafeqisme bi bari ci réew mi politiciens yi di duul di fen seen intérêt xamatuñu luy dëgg amuñu conviction coalition Yewwi Askan bi à part dof jooju dëkk Casamance maire Ziguinchor bi phénomène politique bi. ñeneen ñëpp kenn amu ci dix personnes Malick Gakou dix personnes topp ko. Déthié Fall dix personnes topp ko Aïda Mbodj retraité politique la. ni réew mi mel tey moom ci la bokk ndaxte PDS la ñoo ñu tey ñëw bëgg a jaxase réew mi dem jëlee ay nit Casamance ñuy tooñ nit ñi di yàq ay kër jaamur. mais eh, ku mu neex indi sa histoire mais mais Tange est-ce que faut ne xale yi duñu doomu dëkk bi doomu ñëw Dakar. dama ni ñañu jàpp 17 yi ñoo avoué man waxuma waxu mbedd. Mhm. ñi leen jàpp. Mhm. ba ñu leen enquêté li ñu avoué loolu laa gëm mbedd bi ay fenkat ñoo ci nekk maanaam Pastef mooy parti manipulation parti fenkat parti jaxase nekkuñ ci dëgg parce que seen patron dafa fen ba am diplôme fen six mois sursis ak deux cent si mosuñu gis ci àdduna mooy patron Pastef mais euh, euh, ak li ngay yàq waa Pastef ba waa Pastef Ah. seen jikko leader moo ma neexut parce que moom en personne ci teew ma ak moom dara munoo bëgg a jiite Sénégal ak ci ay fen munoo bëgg a Sénégal ci ay duul munoo bëgg a jiite ci ay fen yoo xamante ni dañ lay daan si mois nga taxaw di accuser état munoo bëgg daan Sénégal ci dem ci ay suite boti mm-hmm. ba pare taxaw ak askan bi nga ne da ngay faju ji foofu du fajukaay ay caga fa nekk gis nga lu vidéo yi ay xale yu sol string sol soutien-gorge soo fa duggee yow loo xalaat mais daanu rek ngay xalaat non ngay xalaat. non non massage ngay xalaat. ak ah, ak ah, ah, waa léegi ñu lay maase xanaa sa machine baaxut. dama ne ay xottu taat soo ko tiimee. ñu téye la fu sensible. su dee sa machine baax na. Olof Ndiaye nee na. góor su sul la ba jógee xel ba gàtt. naa da ngay kan laay xanaa ñoom ñu xanaa ñoom ñuy defaan dañuy encaissé waa léegi waa léegi d' accord waa d' accord waa d' accord comme man damay encaissé kon ñoom ñu taxaw di défendre di taxaw buntu këram mu jaral leen dee li ñu encaissé jar na ko de man de Macky Sall jaralu ma dee Macky Sall jaralu ma taal pëna Macky Sall jaralu ma génn yëkkati benn xeer man sama bopp laa gëm self made man ñoom ñu mu ko jaral kon ñoom li ñu encaissé bari na trop yaa ngi may dégg ku encaissé mooy wax ku xam dara moo koy wax loo xamul doo ko wax

kon bu ñu sonal. ah moom moom moom nee na nañ génne ku am ay preuve lekkukaay fi mu nekkoon moo gënoon euh, euh, nekk lekkukaay te mu see am tous. waaw nañ génne ay këyitam. waaw moom moom mën na taxaw wax loolu. Hmm. moom mën na taxaw wax loolu mais su su weetee digganteem ak yàlla dina xam ndax li mu dëgg loolu du dëgg. ko war a ko gëm ñi ko gëmul duñ ko gëm c'est simplement ça. saa hmm. waay booy Pastef ñu réew mi de. fu ñu neex ñuy dox fu ñu neex la ñuy taw ku ci am fit da ngay teg sa cocktail molotov ñëw jàkkaarloog Tange nga ne ko sa bët bi suuf sàq na ci say bañ doo ko ñibbaale ku ci wóolu sa bopp nag laa wax ku ci def arts martiaux woo ma fu la neex ñu jàkkaarloo sa tànk dina damm mbaa sa loxo damm su dee ay góor lañu du ci ay cocktail molotov lañ koy jaay wala def groupe wur rassemblé wu ay sàcc lañu ay agresseur lañu dañoo xiif. mais euh, loo gis si euh, euh, kër Matar Ba bi ak jumaa ji tàkk ay yooyu Matar Ba est ce que nee dama dégg ñu ne day fayantoo ak booy. dama ne yëfu vandalisme la. ay nitu àll lañu. Mm-hmm. ay rabu àll la ñuy jëlee yi ci àll bi xamuñu kër bu rafet xamuñu oto xamuñu dara. ñooñu la ñu teg tey ñu yomb ay kër jaamur di leen ciblé ñoom ñu nekk seen biir kër leader yi ñoo leen di ciblé di leen ko jox barki demul fi mel fale dimanche maa jël sama jaasi dàqee leen si lañ jàdd ci ginnaaw sànni cocktail yi ci oto Zator Mbaye dimanche 22h fii laa leen fekk ku fi dëkkul doo fi toog léegi-léegi laa fekk cinq boo yu fi toog ma xool ni que dëkkuñu dëkkuñu ci dëkkuñu ci koñ bi ku dëkkul ci koñ bi du fi yàq man maa jël samay matuwaay ku ci pousse ma dem woo gémi yi ñu ngi fii ñu sont pas loin ñi leen dama wax ak ñoom ñi yor seen téléphone di jéem a manipuler yi ñoom ñoo war a am seen ful ak seen fayda ay xaj yu bon ñoo xam ne dañu perdre seen bii bi ñu jaawaree jàng jànguñu bi ñu waree jàng xam-xam jànguñu xam-xam bi ñu waree am métier wuti jiwuñu métier ñu toog nag tey seen dund dee ko gën ñu foog ni état du Sénégal moo leen ko teg dañuy nax seen dañuy nax seen bopp ku génn ci procès Adji Sarr mënoo yor Sénégal waaw ah, mais euh, euh, temps suba est-ce que duñ ma kon suñ fiy saa waay justice la. ñoom ñooy wootee moom moo yàkkamti woon procès woote nañu procès daw na dem tëddi Casamance làqatu. pour jox ko convocation kenn mënu ko gis dem na làqatu ji. te moo ko doon woote kon donc am na luy ñuul ci soow bi lan mooy ñuul ci soow bi nañu ko wax. ki ko porté plainte accusé ko ñun waxuñu moo def de kooku taxaw na wax mbir yi nu mu demee dama ne ku bëgg a jiite Sénégal am nay bërëb yoo doo fa teg sa tànk mbay. yow sax yow ma nga tey dem Sweet Beauty ak ni ñu la xamee tuuti Sénégal yow ku la ne woon kaay dem Sweet Beauty ma may la cinquante mille nga ne non foofu wóorul mën nañ ma fa tuumaal kon donc moom su ñàkkee fayda bay dem foofu ay leader ay ponklum jëm a topp ci am ay jigéen yu mel ni ay maire su golf boobu ñàkk fayda bay bëgg a dee maire su golf bi taxaw di xas Adji Sarr ne moo taal dëkk bi Adji Sarr taalu dëkk bi de ki bàyyi këram vingt une heures plein couvre ñaari jeegam ñu mën ko bës mu dem seeti ay xale ay moromu doomam moromu sëtam dama ni waaw mais donc na assumer dafa doon faju ji léegi ci faj boobu lañ ko tuumalee lool na dem taxaw dama ni fu sa ndigg di métti da ngay dem massage thérapeutique mm. aji saar jàngul école jàngaatul xamul nuñ koy defee nday xadi jaay xamul mais y a plus jeune euh, yoo xamante ne ñu ci dëkk ci dëkk bi nga dëkk xam nga ni cagatu bi noonu la foofu lay jaar léegi yow ci dëkk bi nga dëkk da ngay dugg ruq yëpp xam nga ni foofu cagatu moo fa am cagatu déguisé ñëw bësal ma tuuti ma defal la finition finition mooy lan soit ñu mballu la ba nga daanu voilà nga fay xaalis waa ci kilifa kon donc soo daanoo waxalal sa bopp nit ki yaay suutural sa bopp man tey su ma duggoon Sweet Beauty ba dara fekk ma fa damay assumer carrément toog lem sama gen toog ci ma xam ne ne que daanu naa loolu mooy góor loolu mooy nit man waxuma waxu viol de xale bi moo ko wax du yow yaa koy atte du man maa koy atte moom mi deful dox mu jël quinze avocats dafa jël quinze avocats léegi na dem teew mu wane ne que viol amul na dem teew ne complot amul wax ji jeex li muy def nii amul njëriñ sànni tàccoom la nekk mu foog ni mën na rendre le pays dans le chaos li Macky Sall def bilan bi mu def mooy dagg seen xool xam na ni ko tey ku xool li Macky Sall def da ngay naan ah kii kat liggéey na Sénégal te ñu ko joxaat mu gérer Sénégal ñoom ban bilan lañ def mairie Ziguinchor sax mënu ko gérer ñoom ñu ñu fal maire ñëpp par accident amul kenn ci ñoom ku la mën a defal bilan xoolal ñoom ñëpp. accidentellement la ñu parce que Benno Bokk Yaakaar ñoo xulo won ay liste parallèle yu dul jeex am mer def sénégalais ñoo wara sanction Sénégal ñun ñoko mom politiciens yi matuñu millions ont Sénégal nañ ñu amuñu base amuñu dara amuñu conviction amuñu dara lu ñuy wax mbay sa question yi mi ngi bëgg yaa ngi interview euh, euh, euh, dernier mot ñu la daan gis si wali su ay ah. wala surtout su su dem ay déploiement dem Bercy yow lay Moustapha. waaw lan moo tax bii absence passe. ah Wally de mi ngi Paris Bijou Ngoné dem na. waaw Ndiogou Mbaye dem na. waaw Niang Kharagne Lo dem na man maa yaa ngi ma fekk fii. waaw est-ce que Wally dàqu ma. dafa mel dafa maa dàq de. ah gars yi dem nañu man demaguma. mais nag affaire bi samedi la xëy na fii ak samedi mën naa dem. ah mais soo soo soo demul soo demul est-ce que Wally merewu la ci benn kii. bul fàtte ni man maay l'homme des grands événements VIP people le site des grands événements événement bu ñu bokkul. doo fa gis ndam. You know? Tange Tandian, ah, c'est l'homme des grands événements. Tange Tandian, c'est l'homme uh-huh. des grands événements. VIP People, c'est le site des grands événements. Uh-huh. lu muy def Tange Tandian lay jiital VIP People lay jiital. Uh-huh. kon mooy Dôme de Paris allah yal yàlla def ndam rek. suñ ci gisul Tange tamit xam nga. mais Wally sama rakk la. defal naa ko lépp. defal naa ko Grand defal ko Petit Bal bi defal ko euh, Zénith 2014. defal ko Dock Pullman defal ko Bercy defal ko Dôme de Paris le 26 octobre 2019 mu joué fa 5 h 36 minutes de concert bu artiste bu musul def à Paris kon wal defal nako ko lépp uh-huh. c'est mon frère je le porte dans mon cœur euh, kon euh, kii melu len nen jaxasoo amul dara amul la sentir ci rek en tout cas wali c'est mon frère. bi muy dem aéroport déggante nañu waye ma ngi fi Sénégal dal affaire bi samedi la voilà affaire bi dal samedi la xeyna bala samedi xeyna na mën nañ ma jëlal jet privé. lépp parce que dégg naa am na ñoo xam ne ñi ngi musiciens yoo xamante ne demaguñu ba tey. ah en tout cas dal ma ngi fi dal di xaar. mais affaire bi dal samedi la inshallah rabbi. ah man de sank lañ ma woné mom bay traité ka bi am na ñu demul. leen xaar leen tuuti. pensé mi ngi Sénégal. ah pour le moment. ah pour le moment. mais so demul. waaw ba mais day dara man def na lepp man concert u Jay-Z ak Beyoncé su fi amoon te fayu ñu ma du ci taxaw ndax te jaaxaluñu ma toog naa ak restaurant tok nak ñom ñoom j'ai fait tous les plus grands concerts du monde j'ai vu les plus grands artistes du monde su ci demul ma bay sama rakk musul won ah, dem dem ci rek ah dégg naa Feeling Dakar lañ jittal bi hein Bamba Feeling Dakar dafa mel moom lañ jittal waye logo VIP moo jittu logo Feeling Dakar de ci publicité yi ah ah xoloko xana ah waaw gis naa logo VIP moo jiitu logo Feeling Dakar te datu 3 juin bi. temps ah. ak kisma dañ ci waxtaan ba pare ñu soog ko jël balaa Wally di yëg. moo tax loolu. ah mais kon yow da ngay bàyyi logo di feeñ noonu te doo encaissé doo def dara. waaw yaa ngi ko dégg séeréer mbay dama foogoon ne am nga dégg-dégg. mais amoo ah. dégg-dégg. ah dernière réglage yi ñoo ko yor nag. Ah. suñu jiitoo dina am ñoo xamante ni duñ dem foog ñëpp dem ba pare ñu soog a pousse. <laughs> taas taas wax dëgg de. doon jéego keroog dañ ko mu ne Tange mënul woon yor kii kii xaw ma nu mu tudd site bi site bi mu ne. nee na mu mu mënoo ko woon yor moom moo ko yëg. mais doon jéego c'est mon frère sama xarit la sama doomu ndey la. ñu yàgg maag moom kooku lu mu wax rek loolu la. Ah, waaw moo ko mën a doxal. Tange lu mu wax lu doon jéego wax Tange na ko ok nice. Ah. kooku c'est grand frère. jeexal is the best. ah jaajëf Tange. jaajëf ok. <laughs> may ma may ma may ma may ma. man man danga may de. danga ma may de boo fekkee da nga fàtte ma fàtte la tubaab preuve la xam fàtte xaju fi. Ndeye Khady Ndiaye ma Almira bi sax bàyyi ko sa tribunal ba ñëw euh, accompagner ko. Tange si beneen plateau VIP People le site des grands événements la télévision des grands événements site mm-hmm. bi wax informer juste c'est vrai les nouveaux locaux fil, rendez-vous des stars ok ok ok ok <laughs> ok t'as, Tange jàmbaar la de. si ah léegi yaa ngi voyage. ay talibé sëñ Saliou lañu. yaa ngi dem nii non demagum. ah te yéen a waaye laay xaar nga ne ma billet. Ibrahima Ndiaye mi ko joxoon fi mu dëkk fii fii nii Ibrahima Ndiaye mi ko joxoon fi mu dëkk di doom baay ñu bokk benn baay mooy